monsieur Pape Djibril l'a si bien dit tout dafa am kër bu mag boo xam ne dañ fa bokk mag moom ñu siy liggéey yàlla def na nag moom day ñëw liggéeyam tamit ma ñëw di liggéey foofu ma nekk fa chroniqueuse mais maanaam chroniqueuse sax dafa dul sama liggéey may liggéey ci beneen anam yàlla def Pape benn jour ma dem bitim réew ma tëdd nelawuma ma toog sama salon dëkk bu ma nekkoon mu nga am douze de décalage horaire ak le Sénégal ki ma nekkuloon mi ne ma yow doo tëdd ma ne ko dafa am lu may xaar parce que dafa am benn émission boo xam ne dama ko daan faral di déglu te émission boobu may déglu dafa am sama ay xarit yoo xam ne ñu am xalaat yu baax si mbool waxu économie ak développement jour boobu mu tombe Pape Djibril Fall mu nekk foofu la may koy déglu ba ñu paree ma dem tëdd mais mënuma nelaw ma ne ndekete man Sénégal am na koo xam ne man ak moom ñoo bokk kër mais maag Pape dañ doon nuyoo rek Pape ça va ça va Soukeyna mais am na koo xam ne peut-être bu ma ko jegee dinañu am ay mbir yoo xam ne yu bari dañ ko mën a échanger muy mbirum vision ma ne ko ki ma nekkal kii may déglu nii ça mérite d'avoir une réflexion particulière yëf yi xaw ko jaaxal mi ne ma su nag yaa ngi ñëw de parce que yow dañ la xam ci monde développement muy politique de développement ma ne ko ah kay maa ngi dikk dikk boobu nag yàlla def 15 jours après lu may wax ni yàgg na ma ne cëpp Sénégal Pape woowu ma de man ma woo Pape Djibril ma ne ko Pape dama la soxla. ba ñu waxtaanee mu ne ma ndax da nga am mouvement ma ne ko lan mooy mouvement mu expliqué nga luy mouvement ma ne ko man aw ma mouvement man sama bopp lay demee sama xalaat lay demee mais nag dama am vision boo xam ne si àdduna du ma wax sax si Sénégal koo xam ne am na ko parce que fa am lu ma gëm-gëm j'ai l'habitude de dire que je suis une tête brûlée mooy kenn du ma dugal foo xam ne bëgguma fa te du ma sànni xeer kenn et il s'est am na nañu benn jëmm boo xam ne am na ko ma ne ko Pape moi j'ai décidé d'être avec vous mi ne ma en quel sens ma ne ko damay partager sa vision ba ma koy def am na ñu mel ne est-ce que yow vous avez réfléchi ma ne ko le plus souvent du ma juum ci samay réflexion yàlla def ma nekk ak Pape mu nekk jëmm boo xam ne. defe naa loolu moo tax tey dégg ngeen fii intervention yi fi am koo xam ne day wax ci mbirum développement moo ko ñor koo xam ne day wax ci mbirum entrepreneuriat moo ko ñor koo xam ne day wax ci mbirum question jeunesse moo ko ñor koo xam ne day wax ci mbirum social moo ko ñor Pape mosuma dégg wax bu ñaaw si moom ma ne ko Pape man joxe naa sama loxo. benn loxo laa joxe woon joxe naa ñaari loxo mi ne ma jeex na man ne ko joxe naa sama ñaari tànk et c'est la première fois ma ñu nekk di dox yëf bi jeexagul de ñu ñëw ba si question élection yi foofu la mbir bi yàqoo mi ne ma su kay na mi ne ma naam mi ne ma ñu ngi def élection yi dama soxla sa carte d'identité ma rus ko wax ne aw ma carte loolu mooy wax ni Pape damay ànd ak yow pas pour am poste mais engagement ku ma xam dañu naan Soukeyna dafa compliqué Soukeyna dafa bëri histoire mais man engagement à cent cinquante pour cent maa la ko jox te dinaa la wax lu tax ma jox la ko léegi donc du question poste bokkuma si parrainage bi bu ma xumee bokkuma si députation yi parce que lu may def boo leen xoolee internet Sénégal malheureusement xamuñu ma mais boo leen internet à travers l'Afrique maa nga fekk bureau yu bëri muy accompagner la question femme j'ose plus dire genre parce que c'est interdit au Sénégal mais je vais dire la question femme jigéen ñi moo tax may wax fii te ku wax jigéen pap ñu wax affaire jeune mooy nu ñuy génne départir les femmes les jeunes de cette pauvreté parlerai de pauvreté parce que mooy ñàkkum liggéey bi xam naa danañ si xuus si ay yeneen jamono te gis naa ni pape valeur yooyu la am boo waxee mi ne jeunes boo waxee mi ne femmes yi pape damay sànni xeer nag toujours mooy ñun nañu bëgg luy yomb mais nañu su kay ne day cotiser loo su kay ne day laajte loo mooy il faut apprendre à se prendre en charge mais apprendre à se prendre en charge boobu laa gis ni Pape man yàlla def na dama teel a àdduna Sénégal baal leen ma c'est l'émotion mais faites comme si vous n'avez rien entendu. on n'a rien entendu. j'ai rien dit. on n'a rien entendu. déggu leen dara. on n'a rien entendu. donc ba ma amee 13 ans laa génn Sénégal Pape Mbadou. la tendance est c'est parfait. mais ba ma génnee bitim réew ma dellu si plus tard plus tard plus tard mais j'ai remarqué ni que Sénégal moo ko yor fii ñun ñoo ko yor moi je suis fière damay côtoyer les pays africains mais je suis fière c'est une fierté bu may naan que je suis sénégalaise donc am na ay jikko yoo xam ne am na fi waaye du ñu wax dara baaxu fi nañu wax nañuy yokkee nañuy yokkee c'est ça qu'il faut faire c'est ce que je dis à Pape Sénégal tabarfakal mais il faut que ñu yokk te yokk boobulee ndeyu mbill gée ngi ñuy à côté Pape maa la man mais je suis derrière toi je vais pas te vous voyez mm. je derrière toi parce que yoon bi nga jël surtout pour les femmes yoon bi nga jël surtout pour les filles yoon bi nga jël surtout pour la jeunesse bu fekkee jeunesse bi ñu ngi fi sama président ma cité d'abord mu ngi fi international parce que yow moi Sénégal rek ma cité je travaille avec tout la l'Afrique pour les jeunesses la diaspora je travaille avec les femmes maa ngi ak samay fondation mais ñépp ne nañ ma su kay nag da yéex a dugg Pape devant toute la presse ndax bu dee ñu may déglu mm-hmm. jox naa la sama kàddu mais kàddu boo xam ne damay accompagne sa vision à deux cent cinquante pour cent je triche pas bul am ñaari xel. merci accompagnement boobu nag bëri naa lool nag ñu topp sama gannaaw mais pas comme toute la presse a ngi fii du ma wax yëpp dafa am yoo xam ne dama koy nëbb. voilà faut ñu xam yëpp wax yëpp baaxul. ñu may xool am na ku may bis fii mais maa bañ du wax yëpp. <laughs> donc on va parler petit peu mais ma xam ne ni Pape l'avenir c'est toi je suis avec toi Pape mais mënuma tëj il faut ma wax ci dara benn wax muy affaire professeur Amsatou Sow Sidibé qui est ma grande sœur une grande dame le professeur keroog ba ñuy wax waxam ba ñuy àndee keroog dossier yi sama fa fa la ma fekk maa nga fa wax mais dama ne xaw san savoir se qui se passait dama ne mais c'est dommage professeur dafa xaw a tardé parce que tout sa qu'il nous amoon nañ ko muy le parrainage on avait un excellent de parrainage ma ne mais c'est vraiment dommage professeur yéex a ñëw effectivement avec le professeur Amsatou c'est un exemple dans la vie parce que man tukki naa ak moom day voyager ak man mais même dans les aéroports day daje ay élèves ay étudiants ñu koy xàmme c'est une grande dame et je sais que réeroo rek am seen biir réeroo rek am seen biir te moom bonul yow bonu la donc nañ ko jàppee noonu rek kii propos la woon mais professeur on est avec toi moi je t'adore merci beaucoup et à très